بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الإخوة وأيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala di julli ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ñi ngi nuyu ñëpp ci nuyóob lislaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala li nuyoo lislaam ëmb yëpp yàlla ñu ko yàlla boole defal jàmm ji yàlla ko dollee dotti ci réew mi yërmande ji yàlla ñu ko dencal ba ëllëg waaye barke bi kenn ku nekk la ngay liggéey yàlla na yàlla defal la ca barke ci barke Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ngeen àndak seen mbokk Oustaz Saliou Niang ci seen waxtaan wi ñu tuddee yoor yooru aljumma di ci jàngal julit bi nan la mën a def ngir àddinam baax àllaaxiraamit baax tey nag ñu fa yéene jàngat ak yéen lumb boobu nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam na moo nekk ci doomu aadama te su baaxee jëmmam jëpp baax su bonee jëmb jëpp bon dafa am benn nitu yàlla bu ñuy tudda luqumaanul hakim dafay jàngal doomam àddina ni ko doom dama bëgg nga rayal ma gàtt bee te boo ko reyee ba fees ko nga andil ma li gën a baax ci gàtt bi mu rendi gàtt bi fees ko toj ko gàddu xol andil ko ñu toogaat ñaari semaine mu ni ko beneen gàtt bee laa bëgg nga defal ma ko na nga defoon gàtt bee paase te boo ko rendee ba fees ko ba toj ko nanga ma andil li gën a bon ci gàtt bi xale bi ren deeti gàtt bi toj ko fees ko gàddooti xol andil ko mu ni ko bee paase ma ni indil ma li gën a baax ci gàtt bi nga indi xol ñu toogaat ñaari semaine ma ni indil ma li gën bon ci gàtt bi nga andeeti xol foo ko teg mu ni ko sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis ni am na ci doomu aadama lumb bu ne ci moom boo xam ni su baaxee jëmmam jëpp baax waaye su bonee jëmm jëpp bon lumb boobu mooy xol kon mbokk yi nañu defaraat xol yi ndax yéene suñu bopp jàmm ndax yéene sa mbokkum julit jàmm mooy yéene sa bopp jàmm ndax sallallahu alayhi wa nee na yàlla dafa bind ay malaayika tas leen ci jawwu ji ñuy déglu julit bu ñaanal mbokkum julitam heure bu Oustaz Saalix ne Mbagnick Diop yàlla na gudd fan malaaka yi ne ko amiin walaka misluka amiin yow mi ko yéene gudd fan ba dik ko ñaanal yow it yàlla na ko am kon ndeke doomu aadama lu mu bëgg a am rekk yàlla nga ko dëxëñ ci ay mbokki julitam soo leen yéenee jàmm am jàmm waaye soo leen yéenee safaan am safaan kon mbokk yi nañu defaraat xol yi te xam ni yàlla subhanahu wa taala su amoon fu muy wàcc ci jëmmu doomu aadama xol lay doon kon ni ñuy def ba bu ñu xëyee bale suñu kër bu suñu yére tilimee ñu fóot ko tabarakallahu bu oto bi tilimee ñu raxas ko yitte bu tol noonu nañ ko am ci xol yi ndax segam doomu aadama moo am fayda ba du def ci ndab lu tilim esse yàlla inna tayyibun laa yaqbalu ayla tayib yàlla dafa set bëggulu set kon nañu setal xol yi yéenente jàmm bu ko defee borom bi defal ñu jàmm kon seen émission yor yoru aljuma tabarakallahu hadis boobu la doon jàngat ak yéen ngeen àndoon ak seen mbokk Oustaz Saalih Ñang waaye ñaan gi na képp ku koy saxoo sama borom dana la may xol buy sedd saa su nekk te moo di laa ilaha illa allahu 666 laa ilaha illa allahu 666 boo koy saxoo doo am xol buy metti kon nag yal na yàlla subhaanahu wa taala dolli ci réew mi jàmm dotti ko ci àddina bi corona bi yàlla jeexal ko tàkk ci àddina bi rawatina Sénégal ku mu dalagul yàlla bu mu la dal ku mu dal yàlla na ngi wér allahuma inni audu bika min albarasi waljununi waljusaami wa min sayi al asqaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu amin وآمنهم من خوف